salaamaaleykum eh, man la monsieur Falilou Ndiaye Even Falilou traiteur eh, je suis un expert de la restauration collective et je suis en même temps le président de l'association nationale des traiteurs du Sénégal. waaw association bi li ko traiteurs yi nekk traiteurs yi nekk Sénégal yëpp dañu dem ba santir besoin yi pour organiser wu et fi mu tàmbalee surtout mooy bi Covid bi ñëwee bi Covid bi jàllee et bi jóg na pour dimbalee euh, les corps de métier mais ñun yaatu nañ lool mais comme on n'avait pas de reconnaissance mënuñu. tàllal kenn suñ loxo loolu yee nañu eh, xam ne aussi mbooloo mooy doole ñu ne nañu dajaloo organiser wu. Eh. Eh, loolu mooy initiative bi ñu former un groupe groupe bi partout au Sénégal képp kuy traiteur gis ci sa bopp ñu ne nag léegi nañu ko benn association. ci ci la ñu créé association waxtaan ci sunu biir dajaloo. mais biñ dajaloo ba formé association bi ba pare nag ñu ne association bi dañ ko war a euh, wutal une reconnaissance juridique. c'est en ce moment-là qu'on a requis euh, les compétences d'un expert à la matière euh, mu teg ñu ci yoon loolu moo indi assemblée générale bi euh, pour ñu mën a nekk une association légale avec des papiers légaux et, nous serons reconnus par l'État. ñu bëri ñuy woowee seen bopp traiteur te naam sax euh, amuñu capacité yi wala mënu amuñu xarañte bi ndax yéen a ngi bàyyi xel ci ñooñee nga xamante ne nii seen association bi te li tilimal nga xamante mooy seen liggéey. waaw notre objectif premier d'abord c'est de fédérer les traiteurs mais ensuite assainir le métier parce que on se rend que maintenant. xale bu jóg rek boo mënee defal beignet de crevette neem mini pizza rek nga ne traiteur la alors que traiteur euh, c'est un manager et pour nga mën a nekk traiteur il faut que nga am des notions sur le management de la restauration collective loolu dafa laaj ay compétence ndax d'abord lekk dafa sensible sensible boo xam ne euh, ku ci yëngatu surtout lekku mbooloo dafa war a am loo war a xam war nga xam les règles de l'approvisionnement war nga xam règle conservation des denrées war nga xam règle de l'hygiène alimentaire war nga xam règle de la confection des menus xool lu war a ànd ak lu war la ànd on se rend compte que nit ñi lu nekk la ñuy def da ngay dem ñu togg ceeb def ci fromage def ci nen def ci leneen ak leneen ak leneen loo xam ne du suñu tradition dem nañ ba suñu ceebu jën national sax dañu koy dénaturaliser di ci def yu ci bokkul alors que loolu du suñu sac dañoo am loo xam ne sunu patrimoine national la dañ ko war a sauvegarder kon loolu ñun dañu taxaw te danañ teg ay normes norme yooyu aussi dana ñu permettre ñu valoriser nos produits locaux valoriser li fi maam yi daan togg def ko ci anam bu sell ba képp ku ñëw mën koo jëggaani pour yóbbu ko feneen. macha allah eh, damay sant yàlla bu baax a baax. ndax lii dama toogoon sama kër xalaat ko bi ma ko xalaatee si laa ko def yàlla dogal nag par ma voix lii tey am mu am amicale des amicale national des traiteurs du Sénégal waaw waaye du maa ko moom maa ko initié waaye dama ko initié pour àddina ndax lii dafa jotoon ñu def ko Sénégal toll na foo xamante ni ñëpp reconnaître nañ sëf nous les traiteurs du Sénégal maçon yi sax am nañ am nañ association ba ñëpp ñëpp booloo nañ te ñun traiteurs yi tey ñoo toll foo xamante ni eh, li gën a baax ci réew mi ñoo koy joxe li gën a neex ci réew mi ñoo koy def te booloowuñu suñu bopp ñun moo amati jalousie loolu la ñuy xëcc nag pour mu dindi pour mu dañ pour ñu dem au niveau de l'État ñu ñu ñu xam ñu. ñu ràññee ñu ba nga xam ne les fonction lii xew ci réew mi ñu ciy boole les traiteurs du Sénégal pour nga xamante ne lii xew ci réew mi ñu ciy boole les traiteurs li ñuy joxe ci réew mi joxe les traiteurs du Sénégal. dafa jot nag ñun ñu na suñu bopp moo taxoon tey ñu dajale amical bi on est plus de cent cinquante personnes mais nii la yàlla dogal tey mais nag on est prêt à travailler jusqu'au bout pour atteindre objectif bu euh, Sénégal gis ni directeur nan ngeen di def pour booloo ñooñu euh, actuellement fi ngay wax ni si salle bi am na waa Thiès am na waa Ndar am na waa Mbour ñoom ñoom ñu ngi fi kon traiteur national du Sénégal la c' est pas seulement Dakar c' national am na ku nekk Maroc mi ngi si biir groupe bi am na ku nekk traiteur bu nekk France mi ngi bi kon c' national international. Eh, yamalewuñ ko Dakar rek tey présentement présentement nii waa Thiès waa Mbour ak waa kii yëpp ñëw nañ ci. c'est des initiatives qu'il faudrait pouvoir exploiter. Je pense que tout cela ça fera en fait l'objet non defuñu cotisation mensuelle c'était ay proposition la woon dañu def ay carte membre yoom hologramme am lépp normal les cartes membres c'est à 10 000 francs par traiteur. prend pas de traiteur et si on est sans traiteur on est un million ñu mën a démarrer suñu activité am nañu benn caisse social pour en cas ñi nga xamante ne ñi ngi si group bi yàlla def ñu am ay problème ñu mën koo régler parce que nit bu ñu ànd dañu ànd ngir dëkk dañu ànd ngir social pour jàppalante loolu moo tax ñu ut caisse boobu noonu xaalis boobu day liggéey xaalis xaalis di liggéey xaalis ndax ñu jàppalante traiteurs yi traiteurs yi nga xam ne amuñu këyit bu ñu bëggee marché dañu ñëw si amicale nationale des traiteurs du Sénégal bi nga xam ne juddu na tey am na këyit tey mu mu leen ñu door seen marché ñëw jox ko 1 bi mu am loolu mooy mooy objectif bu ami amicale bi. Euh, sañ naa ko waxaat fii devant tout le monde je suis le meilleur traiteur au Sénégal. waaw ñoom ñëpp ak ñi toog ñu jàkkaarloog man dam koy waxaat ñëpp dégg waaw ndax àddina nit li nga def moi je l'ai fait avec trente cinq ans d' kon xam naa bu baax la may def waxuma ko parce que maa fi man dam koy wax parce que je l'ai fait ñi ma tiim ñi ma tiim xam nañ ma am na ñu ne si yéen ñu ma xam bu baax li ma def li ma li may def Sénégal man xam naa ko xam naa li ma man et je suis le meilleur au Sénégal di remercier ñëpp particulièrement waa monument de la renaissance ñu ñu dalal ak toutes les traiteurs du Sénégal yi fi nekk sans oublier ma femme euh, mon euh, euh, sama secrétaire sama comptable madame Ndoye mooy pré mooy secretaire u Ndoye Lebou traiteur merci beaucoup à tous